rahmatullah mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax euh, kàddu yi nag du lenn luñ koy njëkkee loolu kàddu yi cant te it euh, bés bi moom amaana firnde gi mooy mooy ku ñëw rek di nga gis euh, taxawaay beeg népp nuñ ciy doxee ba amaana sax leeral yi moom da ci dul mën a ñàkk rek waaye niñ ko taxawalee moom ku ko gis xam ne war na war na laa mën a yëm ndax booy xool ay tuut tànk rek waaw da jëmm boo xoolee gis ni ñett ñii fi taxaw booy xool ay ndaw rek nga leen mën a jàppee te jëwriñu daayira baa ngi nii taxaw suñu yëpp kon amaana lépp lu luñ fi taxawal rek mën nañ ni ay passeef dëgg a tax ñu taxawal ko waaw day firndeel tamit ba ci tey nii liggéey suñ Tuubaa moom amul ndaw amul mag amul tànk ginnaaw lépp loo ciy def rek te ñeme ko te te mu toll la fenn lañ nga ca bëgg dañ ko am bés bi moom taxawal nañ ko ci lenn dul ay tuut tànk dong ñu koy dajale ci ci ci ci fukk ba juróom lépp lu ñu am def ko ci mu jarañu ñu suñu lépp waa dagg suñu yitte lépp rek di ko ci def ngir ngir bés bi mën a taxaw ba amaana am nañ ci xel mu dal ba mu ngi doog a tàmbali nii njàngum axuraan bi ci leen toll ak durus xasida yi amaana ñoom am nañ ci euh, limu ci ci am nañ ci lim buñ toll. waaye noonu lañ koy wéyalee tamit ba ba bi jeex tàkk alxuraan bi moom du du fendi noonu lañ koy toppee topp ba bés bi jeex ñu xool luñ ci am durus xas de noonu prestation kuréel yi incha allah léegi mu tàmbali rajaskat yi eh, su ma juumul am nañu tàmbalee ñëw waaw noonu daal lañ ko fas yéene doxalee incha démb daal lañu amaloon tamit guddi chèvre bi Sam Fall beeg yu ni mel waaw te it mbégte daal lañ àndul ba amaana sax kàddu yi mënta leer sant nañ baax waa bisimilah ba an auzu bi hawziri taxa mi seetaan rajim rabbi auzu bika min hamazati sayatin auzu bika rabbi an yaxduruni wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal axirin sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam waradee naan cheikhana cheikh mul xadim wa ala xurwatin azim maam cheikh ibrahima fall asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaar bu baax a baax a baax a baax waaw di sant bu baax sëriñ bi bi mu ñu defalee toogax ñu fekkee ren di juróom-benneelu édition cant mafatihul bisiri kon nag daara ji bu ñu xoolee daanaka yàggut ndax bu ñu nee juróom-benn rek xëy na ba mu sosoo yàggut waaye sëriñ bi defal ñu tawfeex ñu nekk ci gox bi nekk ay tutànk wax dëgg yàlla gox bi manqué woon fi lool loo xam ni demee na nii ndax bu ëpp ëpp bu njëkkaan fi nga xam ni fii lañ defee cent yi di si ëpp daanaka mbirub caaxaan dong la ci doon def tey bu nekkul ñuy tëgg ñu ngay nekk ñu wala ñu ngi def leneen waaye sëriñ bi defal ñu tawfeex am lu mu nam suñu waaye bëgg ñoo liggéeyal tax mu jagleel li nga xam ne jagleel nañu ko daara ji nag mu ngi sosu si atum 2012 ki nga xam ni moom lañ moo moo ñu jox tur bi di sëñ Abdou Rahman bu Cheikh Abdoul mu daaru Muxti nga xam ne ba ñu amee mbébét gi ba dem ba wax ko wax dëgg yàlla mu jël tur bu toll noonu di Mafatihul Bisri daana jox jox jox ñu liggéey bi ñu nekk nag ay tuttàng comme ni ko jëwriñ waxee ndax bu ñu xoolee kii mooy jëwriñu daara ji bu ñu xoolee kon ñi fi nekk ñëpp daanaka ñu si am 30 bariwul loolu dañ koy santewaat sëriñ bi bu baax a baax a baax ndax amaana am na suñuy wajur wala suñu kilifa yoo xam ne bëggoon bëgg nañ liggéeyal sëriñ bi waaye suñu borom defal leen tawfeex kon loolu dañ ciy sant bu baax a baax a baax mun xoolee si juróom-benn at wala juróom-ñaari at tey ñu taxawal lu tool nii dana naan woon ce que jërëjëfe ci sëriñ Touba sataan sëriñ Touba bu baax a baax a baax bu mu defalee tawfeex ak tey taysiir si ndaw yi lu ñun tey amaa amaana waroon mën a nekk ci leneen lu waral ni bis 24 25 décembre nga xam ne suñu morom ñu ngi koy feete si yeneen anam sëriñ bi defal ñu tawfeex ba ñun saa bu dikkatee rek ñuy sant sëriñ kon loolu dañ koy santaat sëriñ bi ren nag ñu jagleel ko Cheikh Salif Mbacké xanaa di di di di bëgg lool lool lool di sant di sant waa daara jëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tout tànk yi ba ba ñu si gën a mag wax dëgg yàlla ay xal lañ waaye bëgg nañoo liggéeyal sëriñ bi bëgg nañoo bëgg nañoo jaamu yàlla kon daal si juróom-benn at juróom-ñaari at daal la daara ji taxaw wax dëgg fa yàlla boobu ba léegi nag am na ay jéego yu bëri bëri bëri bëri yu fi def dem nañ fi ziar sëriñ Sidil Mokhtar dem ziar sëñ sëñ sëriñ Mountakha suñu borom dimbal nañu tamit ba lépp luy wàllu matériel sonorisation tey daara ji amal na ko boppam valeur bu xaw a xaw a xaw a cher te amaana sax buñ koy wax ñu bëri dañuy jàpp ni xëy na fu ñu war a jëlee loolu waaye lépp lépp lépp sëriñ bi la kon daal ñu ngi sant sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax di sant mbokki taal bi nga xam ne teew nañ ci bis bi ren nag cant gi sëriñ Saliou Mbacke lañ ko jagleel kon daal xëy na loolu moo nekkoon lu gàtt rek diir bi daara ji sosu ak fi ñu toll tey xanaa di wàcce foofu kàddu yi rek di di di sant ñëpp di gërëm ñëpp alhamdulilah auzu billahi bismillahi inna waliyallah barke borom Tuuba xaadim rasul waa ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi santaat sunu yaakaar tey ak ëllëg cheikhuna ahmadul xadim xaadim rasul moom mi nga xam ni ku gis bis bi tey jii ñi nga xam ni que taxawal nañ ko muy bisu mafatihul bichri fii ci Touba parcelle unité 5 ku xool nag ni bi tëddee nga xam ne ay ndaw lañ yoo xam ne ka seen mbir lépp dañ koo joyante jëm jëmale ko ci sëriñ bi muy sunug yëngu di sunug dal sunug lépp rek dañ koo jël jébal ko sëriñ Touba amaana nag ay ndaw lanu waaye ay ndaw yu bëgg li ñuy def lañu kon nag kàddu yi moom duñ koo jëmale leen ludul ci ni nga xam ne que noonu la daara ji di taxawee daara ji nag liñ ci wax mooy ay ndaw lañ yoo xam ni que danoo am passif lool te bëgg li ñuy def lool ma jiital ko ci ñii nga xam ne que ñoom laa taxawal di samay samay jëwriñ ci niñ ko mën a tuddee ndax sëriñ Ngagne yor jëwriñ mooy yor euh, organisation bi moom mi nga xam ne que lépp loo xam ne rek lu jëm ci taaral bés bi la lu jëm ci Euh, teg lépp mu daal di jaar ci yoon moom mi ngi ciy def kim kàttanam mi ngi ciy def kim kàttanam waaye lépp rek defu ko ngir leen lu dul sëriñ Touba tax mu di ko def kon nag loolu dañ koy bàyyi ak Serigne bi rek kon daara ji daal daanaka mën nañu wax ni que euh, liñ ci bëgg a wax lépp daal amaana dañ dañ dañoo bëgg daal moo tax mënuñoo mënuñ mënuñ cee sori waaye ñu leen di xamal ni moom bis bi daal bisub sëriñ Saliou la ak cant la. cant nag buñ ko waxee da di bis boo xam ni que mbooloo mu ànd di liggéeyal Serigne Touba ñoo maase boole seeni seeni jëf boole ko muy benn moo tax ñu taxawal bés bii tuddee ko sant Serigne Touba waaye nag dellu njëkkal Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ni moo gind ndaw ji moo leen teg ci yoon ba ñëpp amuk xemmem tef ci moom te jël seeni xol jox ko kon nag daanaka kàddu yi moom dañ koy dañ koy tënk foofu rek ñuy wax ni moom daara ji fi nga xamee ne maanaam euh, fi la toll nii tey du leen lu dul Pastef ndax ay ndaw lañ yoo xam ni que fii nu nekk ci gox bii dañ leen cee ràññee lool ci seenu pësteef ci seenu bëgg te donte diir bi sax guddul ndax lu ñuy wax sixième édition kon loolu jàpp naa ne juróom-benn juróom-benni at la juróom-benni at ay ndaw taxawal ci lu dem lu demee nii doonut nag lu nu yéem ndax xam nañ liggéeyal Serigne Touba moom yemut fenn. noo ci sooboo rek noonee nga cey nga cey nga cey nga nga cey nga cey taxee naan bërigo ci mbartal la kon nag dañuy santaat Serigne Touba bu baax tey ñaan nag mu defal ñu tawféex ba daara ji yéene gi nga xam ne am nañ ko ci lépp rek Serigne bi teel nu ko làqal nu ko foo yàq foo yàq yeggul ci barke Cheikhul Khadim doole Cheikh Ibra kon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp xale yi moom seen daayira bi dañuy ñaan yàlla rek mu jëm kanam ndax Pastef nañ si am nañ ci fulla am nañ fayda te respecté nañu nag képp kuy kilifa fii jox nañ la cër man nag seen daayira bi dama leen di ñaanal yàlla rek mu gën a jëm kanam ci barke Sëñ Fallou ndax am nañ Pastef lool muy mag ñi muy tuut tànk yi dañuy ñaan yàlla fu ñu bëgg a egg yal na leen fa yàlla eggale ndax organisé wu nañu xam nañ lu baax xam nañ li ñu bëgg te ñu ngi koy doxal amuñu werante amuñu dara lu ñuy def lu baax rek lañu xam kenn du weranteeg sa moroom kon nag ñii mag ñi fi nekk ñëpp dañ leen ni ñaanal yàlla seen daayira bi jëm kanam ñu ñaanal seen papa Touba Fayit yàlla yëkkati ko ci jàmm ak salaam ndax tamit kilifa bu baax la yaatal na leen ci seen kër yaatal na leen ci këram ñuy sant tamit Pa Diouf ndax Pa tamit yaatal na leen yaatal na leen amuñu benn buluwi nag ñëw def seeni xasida ñu pare ku nekk dem kon nag man daal awma lu ma ciy wax waañ wi tamit yëkkati nañ ko teg sama loxo ma leen di sant bu baax ndax lu ma leen digal tamit ñu def ko amuñu amuñu lenn luñ ci xalaat am xalaatuñ ci dara ndax euh, yoonu sëñ Tuubaa moom kanam la am waaye amul ginnaaw kon nag dañ leen di ñaanal fu ñu bëgg a egg yal na leen fa yàlla eggale loolu daal laa leen di ñaana xale yu baax lañ xale yu yaru lañ xam nañu kilifa itam mag ñi fi nekk ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. salaamaaleykum ñu ngi lay siyaar mbokk taalibe yëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay waaw di la wax ñu ngi sant bu baax a baax si bi nga xamante ni day màggal du sëriñ kii sëñ Saliou Mbacke xanaa di sant bu baax a baax a baax a baax a baax waaw gars yi moom nañ ci taxawaay bu baax a baax a baax ci waañ bu baax xanaa kay di santaat bu baax di santaat Xaadim Rasuul bi nga xamante ni moom moo ñu yokk def ñu bañ nekk murid saadix waaw ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ñi nga xam te ñoo nekkoon ci waañ bi ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm ñi xam ñoo sama mbokk taalibe ñu ngi sant tamit di leen gërëm abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production euh, et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale